njiitu réew mi kii Sall wax na yéenekaay yëpp di jottali ak jàngat réew mi quotidien mi nettaliwaat kàddu yi nga xamante ne gën na ci fës ñeel bis bi ñu war a jàpp élection présidentielle bi wooteeg dialogue bi naka na ne li nga xamante ne moom la war a joxe lenge yi yéenekaay bi di xam ne ni kon ba fi ñu toll njiitu réew mi daal amul dara lu mu wax lu leer moo waral suñu naataango yi jàpp ni suspense baa ngay way nettali tamit li nga xamante ne wax na ko ci wàllub loi amnistie nga xamante ne dafa jàpp ni kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye moom moytul buntu prison yi dina tijjee ko ngir ñoom ponk yu bari ba tey askan wi amaguñu lu leer moo tax yéenekaay groupe Rewmi Network bi jàpp ni ki sal ci boppam woneeti na mëninam muy xeetub dilatoire maanaam njuuj njaaj bi nga xamante ne yàgg na ko jëfee njuuj njaaj tamit le Walf Quotidien di méngale kàddu yi nga xamante ne njiitu réew mi ci boppam yëkkati na ko ni ki démb ci li mu wax ci loi amnistie bi li mu tontu tamit ci pression internationale bi waaye bi nga xamante ne mu ngi koy woote te njort ni boo moytul kenn du ci déglu sa morom bu fekkente ne kenn déglul sa morom Sud Quotidien moom dafa gis ni fa ñu jëm daal kenn xamu ko ndax njiitu réew mi mu ngi wéy ba tey ci lëndëmal askan wi donte wax na ni kon mission ñaari fan ci weerub avril lay jeex njiitu réew mi yokk ci yéenekaay bi nii mënul am ku koy wutu fii ak amaluñu élection mu nekk taxawaay bu jaaxal lool borom xam-xam yi moo tax ci biir Sud Quotidien ba tey professeur Maurice Soudieck Dione mu ngi ciy addu moom jàngalekat bi ci université Gaston Berger bu Saint-Louis nekkoon njiitu mi Macky Sall dafa mel ni jëfewul dëgg dogal bi nga xamante ne moom la conseil constitutionnel fësal ñàkk koo jëfee nag moo tax yéenekaay bi di Le Quotidien gis ni moom Macky Sall ba tey ni jógewu fa maanaam bàyyi askan wi ci jiixi jaaxa ci lëndëm kay la Macky Sall bàyyi askan wi ba tey noonee la ko bis bi la jour jàngatee di si fësalit li njiiti réew mi wax ni kon ñaari fan ci weerub avril ci lay jeexal mandaawam ba noppi yokk ci ni Sénégal mënul toog te du am njiitu réew taxawaayub njiitu réew mi ci wàllu élection bi moo tax les ko gis ni ba tey moom Macky Sall dafa mel ni gën naa jaxase xel yi li ko waral mooy dialogue gi mu woote te mu jàpp ni candidat yu ñu validé ak ñu ñu rëkkale ba bi ñoo ciy bokk te loolu yéenekaay bi jàpp na ni déggoo moom mënu ca tukkee déggoo dina am am du am L'As Quotidien moom dafa gis ni njiitu réew mi dafa mel ni ku daw res ndax dafa raxasu ba set wecc ci lu jëm ci bis bi nga xamante ne moom la ñu war a tànn ngir amal élection présidentielle Le Témoin yéenekaay noonu la ko gisee ndax Macky Sall moom dafa jébbal yëfi dialogue bi ak tamit conseil constitutionnel ngir ñu daal di ciy addu La Tribune tamit gis ni fu mu toll ni daal dialogue bi ak conseil dafa mel ni ñoom la dénk bi a le 2 avril source a gis ni njiitu réew dafa mel ni ku nekk ci po moo tax yéenekaay bi di laaj ana lan la Macky Sall di waajal Macky Sall kay waajalul ndax l'observateur mu ngi ñuy xamal ni démb njiitu réew mi dafa nekkoon rek di dabu maanaam ratrapage ndax li nga xamante ne wax nañ ko fi yépp waaye tamit ni ko communauté internationale bi ŋàññee yéenekaay bi jox kàddu askan wi ba ci sax ñi yëngu ci wàllu politique ci amnistie bu ñuy rumandaat jëmale ko ci Ousmane ak ñi mu àndal nekk ak ni nga ko jàngatee Macky Sall fësal na ay dëggam bu ñu sukkandikoo ci enquête quotidien dëgg gi bokk na ci li mu tontu ñeel li ñenn ñi di rumandaat ci jokkoom ak Ousmane Sonko moom Macky leeral ni jokkoo moom amul waaye dëgg la am na ñuy dox seen diggante digganteem ak amadu Ba naka noone APR ci boppam nag enquête mu ngi ñuy xamal ni démb njiitu mi lànk na ndaare nekkoon du ca wax li Macky Sall wax démb nag Le Soleil yéenekaay dafa jàpp ni dafa dalal rek xelub askan askan wi ñu mën a jàpp ci waxtaan wi nga xamante ne njiitu réew mi na ko démb ak ñenn ci taskatu xibaar yi Dakar Times jàpp ni ñaar la ci ay ponk muy jéggalaate bi ak juboo gi mu jàpp ni réew mi war na koo def Macky Sall di sàkk juboo jamono jooje ñuy woy di jàpp ay opposant ki ci mujj maître ngañ Demba Touré mi nga xamante ne Libération mu ñuy xamal ni demb dañu ko du tab mandat de dépôt waaye laata dogal bi di rot jàkkaarloom ak atekat bi tàngoon na jip ni ki demb démb diggante Ngagne Demba Touré ak juge bi di Mamadou Mamadou Seck les échos di xam ne ni kon daanaka jokkalante et Groupama maanaam xeex kepp moo ci desoon xeex bi kay yor yor quotidien jàpp ni greffier yi dëgg ñoom ñoo ko jël ndax démb yëngal nañu tribunal bi yépp te nee ñu dañoo fas yéene xeex ba ñu bàyyi seen naatango bi di Ngagne Demba Touré ñu bàyyi xeex bi ak wàllub yoon yër réew mi people mi nga xamante ne tey dafa sekk waxtaan ak kii di Cheikha de légende woykat bi ñu ràññee yor baat bu neex te mature dikkaat na ci carrière am ni mu métier bi mbébétu fédération sénégalaise bu football mooy sekk ab jongante xaritoo weeru mars bi ñu dëgmal seen diggante ak Gabon stade quotidien di ñu xamal ni kon waxtaani sori na te ministère bi ñu dénk walu tàggat yaram ci Gabon joxe na dogalam li waral nag Sénégal taamu Gabon mu ngi ci biir yéenekaay bi di stade ci biir sunu làmb fësal nañu bëgg-bëgg amateur yi muy ñu dund revanche diggante Gris Bordeaux ak Bombardier. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen